Moussa wax euh, menace bi moo mën moo mën a ñàkk c'est-à-dire que ku liggéeyu dañ koy dagg loolu mooy réalité foofu lañ ko wax parce yoonu Sénégal moo nangu loolu. Birahim am na sañ-sañu dem grève mais ki koy fay am na sañ-sañu aussi ni ko bu fekkee bis bii liggéeyoo ko du ma la ko fay. Mm-hmm. loolu euh, aajiwul bisu mbégte bu liggéeykat ñëw di présenter Euh, cahier de doléance mu war a nekk benn communion ñu war a tàppante reetaan dëfal xol yi après kàddu yooyu di gënaat xaw a mel ni xaw a mel ni menace jamono ji nga xamante ni bi secteur boo man di dem président Macky Sall nañ ko fàttale nii waa ECS yi doon wax chaque am na chaque année am na ci ñoom ñuy dee ndax ñàkk protection ci produit yi ñuy liggéey président na xam ne jour boobu ñu ko doon wax noonu am na ay doomu Sénégal yuy récolter ay centaines de millions par jour takk ay morceaux yu xonk fi ñu toog di liggéey président na xam ni. veillu premier mais boobu noonu am na ñoo xam ne seen cabine la ñu toog di toog bay nelaw ndax liggéey bu metti te bu weer deewee du ñu am lu ëpp cent mille francs président na xam ni dafa am ñu mu ni leen dinaa soppi seen statut mm-hmm. daaw. ba ren ñëwaat te soppeekuwul président na xam ni jamono ji mu wax loolu secteur privé transporteur yi am na ñoo xam ne ñu ngi grève président bi mu wax loolu na xam ne ñi waaj a grève am na plus de cinquante doomu Sénégal yu ay samba boy dogaale Mali nangu seen xaalis nangu seen ay oto tey amuñu lu ñu lekk amuñu lu leen jëli ñu ñibbi ñibbisiwaat Sénégal ba transporteur yi def point de presse président na xam ne bi mu wax loolu quatre-vingt-dix cent ci ñiy liggéey Sénégal amuñu bakkaar fegoo ñu ngi souffrir ñu ngi sonn ci bisu fête bi ñu war a dégg benn discours bu neex. président bu mu fàtte ni. ñi gouvernement di fay dong nga xam ñoo gën a néew ci ñiy fayeeku bu mu jàpp ni ñooñu dong ñooy fayeeku. bu defee menace il est le président de la république du Sénégal. kiy jaay taabal. ki liggéey fongi limi ki ñu teg loxo Burkina Faso ñëpp moom mooy seen président warut a jàkkaarloo benn syndicaliste comme ni ma jàkkaarloo Cheikh Diop ni fekk foog ni kii dafa féete parti PDS wala dafa féete parti taxawu donc sama discours moom laa koy jagleel bi ku mën a dem grève grève non non non bon je pense côté communication dafa am ay kaddu yu ñuy war di teg ci kanamu président feet yu mel ni bu amee discours feet dafa am discours 4 avril am discours fin d'année am discours politique am ak meeting ak discours am Abdoulaye Wade loolu leen ma ne woon. Mhm. mais tax euh, ku mën a liggéey liggéey ku liggéeyal ñu dagg la loolu du discours. Mhm. kilifa ci guddi yi ñu toll nga xam ne liggéeykatu Sénégal ñoo gën a souffrir ci àdduna ñoo gën a sonn. Mhm. et pourtant Mansour Macky Sall nee na teg na ci lu toll ni mille cent quatre-vingt-cinq milliards. yoo xamante ne ci diggante deux mille ak léegi yokk na ko ngir jàppale ñi nga xam ñoom ñooy yëngu ci wàllum liggéey est encore une fois loolu. ñaata leen jël ci ay liggéeykat. Mhm. ñaata ñoo yokkuwaat ñaata ñoo judduwaat ñaata la Sénégal soxlawaat. gis nga bala ma jógee jàpp ñu naan budget Macky Sall wax sànq Mansour ci lu jëm ci wàllum secteur privé bi ak taxawaay bi nga xamante ne mën na ko indi. Mhm. ci lu jëm ci wàllum employabilité. Euh, euh, Lamine Senghor budget Abdoulaye Wade mënta tolloo budget Abdou Diouf parce que Abdoulaye bi muy gouverner Sénégal 7 millions la ñu woon. Mhm. boobu fii nga nekk nii sa rajo bi ne fi ab mbooy la woon àll. ay till la fi nekkoon ak mbëtt ak jaan nguuru bi mu ñëwee budget mënta tolloo ak budget Macky Sall Macky Sall bi mu ñëw daf fekk Abdoulaye Wade programme autoroute Ila Touba ba ñu commencé chantier yi. et pourtant Macky moo ko inauguré. est que est-ce que kan la ñuy laaj ay compte kan moo koy bàkkootee kan moo koy boole ci bilan Macky Sall et pourtant du bilan Macky Sall bilan wu Abdoulaye Wade la mais dañ ko bàyyi ak moom AIBD kan moo ko commencé. Abdoulaye Wade euh, yeneen Eiffage yi nii kan moo ko commencé. Abdoulaye Wade quartier bi nga nekk nii kan moo ko lotir Abdoulaye Wade. mais mais ci gestion Macky la ñu koy boole. ni ni dëkk yi màggee gox yi màgg noonu la liggéeykat yi màggee budget Macky Sall bu tollee ak budget Abdoulaye Wade ñu laaj Macky Sall noo ñuy jiitee. Mhm. foog mu génne xaalis. Mhm. foog mu génn xaalis foog mu gën a yokk parce que budget bi ñu koy voteel chaque année day yokk ko bu ren bi ëpp bu daaw bi bu déwénee ëpp bi noonu lay demee maa fi def lii maa fi def lii nguur loolu aajowul di annoncé chaque chaque pays pays bi gën a ndóol ci àdduna boo demee budget ren moo ëpp bu daawam. merci Mansour euh, ñu wax ci euh, procès en appel euh, jëm ci wàllum diffamation bi nga xam mooy wut